كنا لنهتدي لنا هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara di sant yàlla buur bi nga xam ne moo may daje bi am mel ni ñi ko séentoo woon yaakaare woon ko ñu sant yàlla buur boobule di sant yàlla itam ci jëmm ju tedd joo xam ne sàkku nañ ci moom ak teewoom teew gi jafe lool ndax ay gàllankoor yu bari wante ci atteb yàlla yàlla baaxenu ak xëram ci lislaam de mu nangul ñu woote boobule di sëriñ Cham Mbay yàlla seede na ne toogaay bi sax mënu ko wante jeex gu mu jeex ci lislaam ak jaral bu ko lépp lu aju Cheikh Xadim jaral moo tax mu ñëw waaye kon du ñëw loolu yàlla seede na ko bari na fu ñu ko soxla woon tey lool waaye béréb yooyu yépp joxe woon na ngànt ngir ñàkk a mën a dem ngir wére bi ak ay tabje wante fii moom wax na ne faw rek lu gàtt-gàtt mu teew fi ngir yittewoo béréb bi ak yittewoo ci liñ fi yëngu kon yàlla na ko yàlla fayal ñu sàkku ci yéen ñëpp ngeen marché ci dolli koo ñaanal yàlla wéral ay cëram guddal fanam lool mu yàgg liggéey lislaam ndax diine ji soxla na ko lool lool lool lool kon fu mu toll rek dañu war a ñaan mu wér te yàgg fi lool kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko masawu coono moom li muy def lépp li tax mu di ko def xam na ko tey jaral na ko kon ñu bàyyi ko yàlla mi tax muy liggéey liggéey bu sell ne bi muy liggéey kon du ma guddal ci wax ji ndax xam naa ne ñëpp ñu ngi taatan te yàkkamti ko lool kon lépp loo xam ne lii mbirum lu war a wax la daf koy wax gannaaw bu waxee ba noppi wante moom dañ leen a bëgg a nuyoo léeg moom rek da leen di bàyyeeg moom fi saa si mu dal dugg ci waxtaan wi ba fii mu toog nii jotagul woon a tànn thème bu mu war a waxtaane wante moom tabaarakallaahu waxtu wu nekk saa su ne rek pour moom képp baax na man nag daara ji ma gis tax na ma doon wax naan ndax duñ ko wax ne waxal ñu ci diggante Serigne Touba ak alxuraan ba bu ñu ko xamee nu xam ñu itam lan moo gis suñu taxawaay laaj la boo xam ne bu fekkente ne juboo ngeen ci yaa ko jox micro bi mu tontu ñu ci tontu li nag jombul mën naa nekk conférence mbaa mu ëpp ko sax bu ngeen taamoo beneen itam nag moom pour moom fépp baax na boobu baax na kon nag Serigne bismillah ñu ñaan nag feeg muy àggal noo ngi ñaan bu fi kenn noy yi maanaam noy yi ci boppam noo ngi ñaan daal bu ko kenn def insha allah bismillah
والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في جلتني gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen balu xaq di leen ndokkeel ci daje bi nga xam ne jëmme yàlla ak yonent bi ko waral ak sëñ Tuuba ci biir cadre l'islam di leen ci ndokkeel di leen balu àq sàkku seen ñaan di leen ñaan lu ñu mën waxtaan nag fi ñu ko bëgg a tibbee dafay lu diis lu lu rëy di alquran alquran ni mu toll ku ne xam nag rëyam waaye na mu toll kenn xamul ko dul suñu borom tabaraka wa taala sëñ Tuba dafa am lu ko suñu borom xamal lu bari moo tax fonk gi mu ko fonk ak fi mu ko teg mu teg ko fi alquran mbootam moo yor àdduna moo yor asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar amul ci kaw suuf lu ñu mën ne du mbindeef lu dul alquran kenn mënul ne alquran yàlla waaye kenn mënul ne du yàlla waaw waxi suñu borom la tabaraka wa taala jalla jalaaluhu azza kamaaluhu réyaayu alquran àgg na ci sayyidu la odina wala xirina xam ne mbootam ay géej la yoo xam ne génn géej guñ ci taq lu fees kuddu nandal ko bu yonent du ko attan te sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne aay ji njëkk wàcc ci moom li mu daj ba mu daataan dugg ñetti ñett ñetti xoj yi ko Seydina Jibril xoj ngir aadamiya maanaam doomu aadama gi ci moom randu may place melaw yi ci moom te féete kaw melaw malaayika ngir alquran mën a dugg nga xam ne xaraf alquran mu nekk bu mu seetoon mbootam fanweeri junni malaayika mënuñu koo yëkkati wenn xaraf ndax ulama u rabbaani yoone yi nee ñu xaraf du lu ñu bind ndax xaraf ci alquran la soqi ko ca la bokk dañu ne alquran bu mu dikkee lawxul mahfuz ñetti wàcc ñi mu wàcc wàcc bu njëkk ba bi njëkk a njëkk a njëkk la ulama yi werante ba ne xamuñu fu mu jógee waaye rabbaan yoone dañ ne ci ummul kitaab la jóge ummul kitaab misaal nañ ko ay yoon mooy béréb bu xam-xamu suñu borom bi al ilmul qadim xam-xam bi nga xam ne sosuwul naka jëkk dafa am di aw melo ci melo suñu borom yi tabaraka wa taala ñi nga xamee ne rek ñu nu ko daan misaale waxtu wu nekk daa ji nga xam ne ci ngay sëpp di bind nga xam ne daa ji lépp a ngi ci bu fekkee ne xam nga li nga war a bind lépp alquran yi nga war a bind xasida gi li nga war a bind lettre bi nga war a bind tur yàlla li nga war a bind lépp li nga bind mu ngi ci daa ji daa ji kon mooy ndey li ngay war a bind lépp noonu la umbul kitaab yi demee ci lépp suñu borom tabaraka wa taala bind ba fa alquran jógee la soog a ñëw ci lawxul mahfuz bu jógee ci lawxul mahfuz bi ñëw ci asamaa dunya asamaan si gën a jege dañuy wax juróom-ñaari asamaan loolu misaal ko day doon wax ju gudd wax juróom-ñaar xam ngeen ci alluxaatu saniye day dikk moom juróom-ñaar fukk ñu nam rek ak bari te namuñu lim bi ni mu toll alquran nag soog a jóge ci asamaan soosu di wàcc mun na jaman maanaam di wàcc ngir ay xew-xew benn acte bu war a wàcc alquran wàcc ko wala laaj boo xam ne moo xam musrikoone yi wala yahud yi ñoo bëgg a juum loo yonent bi laaj ko laaj alxuraan ñëw tontu wala saxaaba yi dañoo nekk ci béréb bu sore ak yonent bi mbir xew ñu bëgg a xam nañ cay jëfe aay ji wàcc seen gannaaw buñ dikkee fekk atte bi ñu xamal leen ko kon bi xasabi tanjim ci ñi nga xam ne noonu la xew-xew yooyu di xewe alxuraan di ko tontu wala ñu def lu dul noonu alxuraan ñëw di leen jàjji wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam aaya wàccul mbir xew mu war a doxal dara mu xalaat ci xam-xamu boppam ak xelam jëfe benn muy noona dajeeg nameelu suñu borom wala mu ñàkk a dajeeg nameelu suñu borom suñu borom jàjji ko ni mu amee ci asra badrin ni mu amee ci yenn ci xew-xew yu bari alxuraan di wàcce noonu kon dana gudd muy wax historique bi maanaam taarix alquran bi muy wàcc ñi nga xam ne ñi mën a bind ñi ñi fer iji mën a bind arab ci biir Arabie saoudite ni ñu néewee ak nañu doon bind alxuraan xam ne amul ay tomb amul ay masque ni mu defee tatawur ba bi ñuy def mushafu Seydina Ousmane Kamil bi nga xam ne moom la ñuy jàngale bi ànd ak alqiraatu sab'a day nekk lu gudd ndax du kon laaj bi laaj bi mooy sëñ Touba digganteem ak alquran alquran bi fi sëñ bi ñëwagul jullit ñi ci Sénégal dañ ko daan jàng fonk ko fonk koo xam ne fonk ko war koo mokkal la ba nga xam ne doomu soxna ju mokkalul alquran kuy mën alquran la ñuy wax kaan kaan mooy ki nga xam ne dafa mën a tari téere bi ba mu jeex mu mën koo wan gannaaw bind ko te ay yàqam njuum te lay doon njuum nag ku dul yàlla da nga ko def alif yi ñu xasafoon ca mbind mu njëkk ma ñu binde ko mu xonq nga xam ne kii bind kaamil alxuraan ay daa lay amee daa ji muy rëyale alif yi mooy hamza hamza yi daa ji nga xam ne moom lay maase xam ne ju xonq lay farala doon yi nga xam ne moom lay rëyale benn nekk bu jaune wala bu vert yi daa yi nga xam ne moom la ñuy bindee jeexali saar yi xam ngeen ne jeexali saar yi suuratu nangam nangami aaya bokkul ci alxuraan moo tax ñu di ko xonqal nga xam kon xalif yi war a dagg xam fi aaya war a jeexe xam sew-sew yooyu yëpp te wolof yi xam ngeen ne bu ñu daan jàng alxuraan ci jamono yooyu xam ñi ci gën a bari xamuñu maxaarij xorof maanaam xorof yi nañ koy tuddee nañ koy waxe génne ko ci lamiñ ak ci put tax xaraf yu bari ñu bokk nañ koy tuddee di benn ba nga xam ne buñ koy bind mën nañ ko bañ a xàmmee loolu tax ñu dikk ci wàññi yi wala boole yi nga xam ne moom la ñu daan sos za di daal googu ñu tomb za saa lañ ko daan wax saat saa lañ ko daan wax siin su wow saa siin su tooy saa raa bu ñu tomb saa war maanaam li wal fi wax taatànk bu àndeek tomb ba tey saa te yooyu yëpp benn bokk ci moroom ni ñu ko war a tudde ñoom ñu daan boole yëpp tuddiin kuy boole yooyu yëpp tuddiin boo koy bind dana la jaaxal loolu taxoon ñu indi li nga xam ne moo di boole yooyu le yii boole di ñëw di xam le jeexitu aaya yii boole di ñëw di xam jeexitu aaya yi nuroo te fii di juróomeelu aaya ci saar yi wala fukkeel muy achar ak xumus yii boole ñëw di xamle alif yi ñuy dagg ak yi ñuy aj yii ñëw di boole baat yoo xam ne dañoo bokk ñoom nuñ koy tuddee te bokkuñu nañ ko war a bindee ñu tàmm loolu di ci wéy ba àgg ci li ñuy wax ne xam-xam ñett la xam-xam bu ñor ba xëm ak xam-xam bu ñor te xamul ak xam-xam bu xëm te ñoragul ñu àggoon kon ci seenu jàng alxuraan xëm xam ngeen ne xam-xam bu ñor te xamul moo di xam-xamu xadis xam-xam bu ñor ba xëm moo di xam-xamu naxu bi nga xamee ne nuxaat yi maanaam ñi jàng naxu dem nañu ba àgg ci di dugal ay masala yoo xam ne dafay jafe ñu di ci sonn te duñ ko jubloo lu dul di seet ndax kii dégg na naxu lool wala déet di ko ko teg ni ki al ixbaaru billazi wal alifi wal laami ak yeneen i ahkaam yoo xam ne yu naxu la amul njëriñ ci ki koy jàng ak xam-xamu aroog nga xam ne li ci ëpp nazariya la théorie du tax a mën a way du tee mën a way wante Xalil ibnu Ahmada sos na ko génne ko ci xalaatam mu dugg ci biir xam-xam yi xam-xam bi nga xam ne nag moom laa wax ne dafa ñor te xam xam-xamu alxuraanu waa réew mi ci ni ñu ko daan jànge àgg ci mooy ñu dem ba li ñuy wax sartaagal tàmm gi ñu tàmm ñaari baat ñu niroo wala ñett ñu wàññi ko yóbbu leen ci xaraf wu nekk ñu sàkkal ko lu mu nuróol ci waxinu wolof ah bi ñu defee loolu tàmm gi nga xam ne tàmm nañoo wañ ñi lépp lu nuróol ñu dugal ko ci seen waxi wolof topp nag boole yooyu ak waññi wowu bay li ñuy wax tor moo di turra boo wattoo alquran ba bind kaamil da nga laxasaat geneen laxas ngir di torlu tor mooy fas yéene dajale boole yépp wala nga boole ci lu bari lool ba doy waar nga dajale ko mokkal ko nga xam ne robo jee ju la nit jox bind ko ba noppi di beqi ñetti baat ñoo wax mën koo jox boole boo xam ne yi ci gën a bari dootu jëriñ ñu topp loolu ba àgg ci laawaan xam ne laawaan doomu soxna yi niñ ko daan defe ñoo raw li ñuy wax ñi ñuy wax ay almuuda raw ñu tuddee seen bopp ay wala ñu tuddee doon ay géwél di ñaan nga xam ne laawaankat yi yàq nañu dañoo déborder ba àgg ci melo woo xam ne ja jubootu la kuy jàng alxuraan wala nga di ko jàngale ñu dem ba nga xam ne seen laawaan moomu dañuy agsi ci ab dëkk laajte turuy jànq yi fi nekk wala jigéen ñi fi nekk ñu jox leen ko bu ñëwee dañ leen di ragal ndax seen lamiñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na wa sharru naasi man ittaqaa ittaqaa li sharrihi li lisaanihi bu ñu xamee turu kooku bu ñu jógee reer ba noppi dem ci pénc ma teg seen i ndënd mbooloo mi àdduna bépp ñëw daje ñu daje tàmm nañu fent way bu fekkent ne indil na leen togg reyal na leen ay ay gàtt indi leen meew jox leen alal ay lam lami xaalis wala lami wurus ay yére ñu daal di koy tagg tagg woo xam ne day wër réew mi ñu di ko waxtaane nit ñëpp dégg turam xam ko wala kooko lott ne ci defal leen la ñu bëgg lépp ñu woy ko woy wu ñaaw woo xam ne wu réew mi joxlante le moom ak i waajuram ñu topp loolu ba nga xam ne ni shuara yi meloon ci arab ci li jiitu lislaam ñoom ñoo ko rawoon benn waaye doon na nettali ne benn laawaankat dafa ñëw ci benn dëkk xanaa jamonoy nawet nga xam ne baykat yi ñaare nawet la ñuy gën a lot dañuy dem ci àll bi di dagg ci xob yi ne mbuum la bu ñu toggee cere def ko ci bi laawaankat bi ñëwee xanaa li ñu am ci cere bariwul ñu yekkal ko li ñu amoon lépp bariwul mu ngi ànd ak ñetti moroomam daal di ci def mbuum mu bari yokk ko pour mu mat dañu laawaankat bi ñu ñëwee rek dal di fab loxoom làmbu daju ludul mbuum mu puus loxoom bi àgg ba ca sësu ndab la mu daj tuuti cere rek mu dal di dar nopp yi yooxu ne wuy ana seen cere ba ngeen di reere mbuum ñi ci des awu ko ñu daal di continuer ana seen cere ba ngeen di reere mbuum gàcceel ñooñu teg leen lu ñu mënul ci laaj leen ci sa bànneex bopp lu ñu amul moom la ñu mujjoon walbati njàngum alquran ba mu mel melo woowu doo ngay daara yi di bind mbind moo xam ne xaraf yëpp day mëdd ñu wicc raayeeg waaw yeeg xaaf yeeg noonu yi ba mu ñur lu kenn xamul bu ñuy jàng itam noonu ñu wàññi du ñu weesu wàññi wu ñu agsi tudd ko bu fekkee ne kaanu mi maanaam ki man alquran gane na beneen moroomu kaangam daf naan nañ ma yekkal yekkal mooy lan dongay kaan mi na ci am ku bind robo jox ko mu topp fu ñuy toppee robo ji dañuy woo waa dëkk bi ci pénc ma lay doon nga xam ne kaan yi dañ daan xotti tubéy joo xam ne ñetti pièces lay doon di buubu sol mbaxana moo xam ne pompom maanaam laar bi day wàcc seen gannaaw ba wees seen ndigg nga xam ne suñuy tari di jaabantee dama ko dikk boole bu ñu agsi way way ko léegi nag ci yakkal bi dañuy woo sax borom sabar yi ñuy tëgg du ñëwee géew la ñuy def bu mel ni géew fo boo xamee ne kaang mi mu gane si seet ne ki mu gën a wóolu ci dongo yi mu bind robo ji ba topp ko ba wóolu ko kaang mi moom du ca laal dongo yi rek ñooy seet ba wóolu robo ji bu ko joxee bu toppee ba ci si benn yàq xalima gi daf koy yëy genn taatu xalima bi lay yëy ba mu nooy mu dugal ko ci daal ji jeqar bi jeqar bi ba mu taqrib moom lay corriger maanaam moom lay ñu ko xam moom lay jubbantee yàq wi ànd ak ko way rëppeelu nga dil bind geesu mbaa nga dëkkee nafar bu ko defee ndënd yi daal di aw way yi jóg loolu ñu def ko gàccee muy lu ñuy waxtaane li ñuy wax daal dañoo abatar diiroon bu baax alquran akum njàngam xam ne ñi jàng alxuraan sax benn ragal yàlla nekkatu ci ñoom niti po la ñuy doon di niti adduna yoo xam ne dañoo lal seen ngóor ci kaw seen lami yu ñaaw soo bindee kaamil ci mujj gi bu jeexee nga dal di bind man diw sàngam doomu diw sàngam doomu diw sàngam maa bind kaamil bi dal di tagg sa bopp jërëjëf dal di tudd sa sant wax nam la neex ci gàttal noonu lañ la sëñ bi dikkoon fekk ñu gën a bari ci doomu soxna yi ñuy def noonu ci alquran bi mu ñëwee xam ngeen ne jàngale na jàngale na alquran jàngale na xam-xam xam-xam bu ñu ko waxee ci réew mi loxo arab langue bi ci la bokk diggante naxu ak balaaxa ak loxo ak mantaqa yooyu yëpp ci lañ ci la daan bokk ba xam-xam yi diine yi soog a ñëw muy jàngale alquran waxtu wuñ ko joxee robo li daan gën a jëfandikoo mooy aljawharul munazam xam ngeen aljawharul munazam ilmu rasmi la ñu tuddee loolu kàng yi daan defi boole ngir bu ñuy bind bu ñu yàq ilmu rasmi la ko arab di wax aljawharul munazam ci ilmu rasmi la loolu daana ko nangu ñu ko joxee alluwa mu topp ba mu jug nga xam ne benn yàq nekkatu ci mu ne am naa yaakaar ne mën nañ koo jàngale yi nga ci xam ne ci ay takk yu am njariñ la wala yoo xam ne yeete mooy tax mu dugg bopp nit ki mu defe ko noonu tàmbali jàjj bi boo ko joxee kaamil lépp lu dul alquran mbubbam lay tooyal ci ndox lafu mbubbam fomp ko wala ne wax yàlla kenn du ko dendaleeg dara boo ci bindee sa tur mu xeet ko loo ci def lu dul alxuraan rek mu dindi ko mbind mi ci boppam mu jàngale mbind kaa ngi dañ naan wax mbindum njaareem mbindum waa njaareem mbind la moo xam ne ci sëñ Tuubaa la sosoo xaraf yëpp day xoole mbind mi leer yaru doo ci fo doo ci indi benn wicc doo ci indi dara lu dul loo xam ne nii rek ormal alquran ji moo ko laaj ñu seet nag kon ni nga xam ne noonu la sëñ bi am ci gis ba bi mu dikkee dal di njëkk ittewoo fomp alquran ba mu set mu xeeñal ko cuuraay ak lij ko lañ teg ko ci lalam tëdd ci suuf moom xam ne alquran wax yàlla la alquran daraja ju kawe la ci mbiru suñu borom li ñëw ci àdduna alquran la ci ëpp daraja moo ci gën a foor moo ci gën a diis moo ci gën a rëy alquran dafa laaj lu ci nit kiy jëfandikoo na ànd ak na laab ci zahir ak ci baatin laab ci zahir mooy ànd ak njàpp tahaaratul xadasi wal xadas laab ci baatin mooy sa xol nga génn ci lépp lu dul yàlla nga teewlu nga teewlu yàlla xam ngeen ne teewlu njaal bennu teewlu mooy nga dàq lépp lu dul yàlla ci sa xel doo ko xalaat sa xel du ca dem doo ko fàttaliku boo yàggee teewlu da ngay àgg ci li wax muraqaba muraqaba mooy fuglu yàlla mel na mi ngi lay tiim foo toll nga di ko yëg yëg goo xam ne daf mel ne yenn bi gën a diis lañ teg ci sa xol bi mu di ko bés nga ànd ak tiit moo xam ne sa cër yépp ay lox nga fàtte lépp lu dul yàlla muraqaba boo ci yàggee ci ngay àgg ci mushahada mushahada yeneen la nanu dem ci alquran ba noppi alquran dafa wuuteeg téere yi nga xam ne ñoo fi njëkkoon a ñëw mu di tawra ak injil ak zabur mu wuteeg ñoom ndax téere dana wàcc maanaa mi rek wàcc ci xolub yonent bi mu wax ko ci kalaamu boppam dara du ci ëpp dara du ci yées na mu dikkee ci boppam kon téere yooyu dal di taxaw taxawaay maanaam amee daraje yi xadisul quds yi xam nga ne xadisul quds yi maanaam li ñuy wax message bi maanaam maanaam yi mooy wàcc ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ci arab bi boppam lu ci dul li ñuy wax le dix commandement wàcc ci Moussa noonu la mooy li tubaab di wax texte inspiré ak texte révélé alquran moom nii mu dikkee la dikkee xaraf yi ak lépp amul dara lu ci soppiku lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yokk wala lu mu ci wàññi nii la dikkee woon te noonu lay delloo bi alquran wàccee di lu yéeme loo xam ne arab yi nga xam ne ñoo nàmp arab am ci ñoom ay ay xutaba ak i shuara ak i bulaga yoo xam ne ñoo gën a doy kéemaan nekk fi ñu seet ne yéeme gi alquran yéeme ci bu ñu seeteel waxu arab yi rek ak li muy wax ni mu tiime wax yi ña dàq wax ci arab yi ci jamono jooju mel na ne ki jëm màkka ak nga xam ne génnagul Dakar te màkk tax koo jug loolu ba léegi tubaab yeeg yenn ci borom xam-xam yi nga xam ne gëmuñu lislaam mooy di leen jaaxal ba léegi xam ngeen ne dañ daan wax ne alquran mooy gànnaay gi gën a rëy ci gi Muhammad amee ku ko déglu rek dal di tuub ba ñooñu ay arab lañu woon daañu xam zahiru wax ji waaye yéemeeg wax ji ak yéemeeg li muy wax mooy tax ñu dal di tuub ba ñu daan tere nit ñi ku déglu Muhammad sallallahu alayhi wasallam buy jàng alxuraan daf daan def su guddee mu nekk ci biir néegam di tari alxuraan ku faru Makka dal di tere ku déglu alxuraan ci moom ndax bañ nit ñi tuub waaye yéeme gi alxuraan yi yéeme tax ñoom ñi ko doon tere ñeent ci ñoom ñi ci gën a acharné guddi ñu dégg baatam muy jàng mënatuñ koo buñ ñu wàcc seen lal génn seen néeg dox ba kenn ku ci nekk dikk ci roq ci néeg bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk di jàng alxam nga di ko déglu ba fajar ngay ñibbi bi ñu ci yoon wi nag la ñu daje ndax yëgoowuñu woon kenn ku ne da ngaa jógoon yow dong noonu ñu def ñetti yoon ba soog a géñ waat ne bu nu dee def nii ñi ñuy tere ñu déglu kon dootuñu ñu leen man dootuñu leen mën a tere te kon ñëpp dañuy ñëw déglu si alxuraan te buggunu Muhammad nit ñi topp ko di nu te kon nun dañuy wéet ci li ñu nekk da te kon daf nuy gën te buggunu nit ñi nangu li muy woote. xam ngeen ne kon lu yéeme ngoog ci zahir bi rek alxuraan yéeme gi mu yéeme bu nu fekkee ne nag jëmm joo xam ne suñu borom daf koo xamal lu bari ci maanaay alxuraan. day ragal alquran ndax alquran ak tawxid wax nañ ko ci ay yoon si ngeen am na fi conférence bi mujjoon a def biñ ko dee laaj ci almaiya boobu nga xam ne ulama yu gànnaar diggante wuldu fatan ak ibnu hambal dañ ci doon soowoo kii indi waxi imam alxasali kii indi waxi cheikh ahmad tidiane radiallahu anhuma di leen sëñ bi tontu wan ne leen ndax alquran maa yi ci nekk benn bokk ci moroom lu mu tekki mu ne leen ku xamul jëmmi yàlla janam demee mënuloo xam ànd gi suñu borom ànd ak mbindeef yi na ànd nga demee te xuus ci mbirum tawxid ak xuus ci maanaay alquran lu diis lu rëy la lu ànd ak yàqute la ak alkande ndax nit ki wax nañ ko ay yoon waxtu tolloo ci sukuraat ba nga xam ne ameetul atteb adduna ndax dog déggatul lii jub ci adduna gisatul lu nekk ci adduna malaayika mi lay xool miy rocci ruu gi mu amee atteb bar sax xaat bu boobaa li muy njëkk a gis mooy ay jëfam ak i pas-pasam bu xoolee pas-pasam lim façon ci tawxiid wala masala yim jàppe woon na nii la te du noonu day janloog njuum te li mu juum bu ko defee dana dal di tiit ñaaw njort ci boppam te suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu ngi tollu jaam bi fa mu ko jortoo rek fal yazunna bi abdi macha fa ana inda inda zanni abdi aw kama qaala maa ngi tollu jaam bi fa njortam kon na ma jortoo na ko soob bu fekkee ne nag foofu nga tolloo ci sukuraat nga xam ne amatoo jëf te yamuutul maru ala ma aasha alayhi wa yuxsharu ala ma mata alayhi te ni nga deewee li tax deewu betteel rabbani yoon yi ragal ko moo di xamuñu fu mu fekk sa xol xamuñu fu xamuñu fu muy fekk sa xalaat wala say xel ngay xalaat lu ñaaw ñu génne sa ruu loola tàmpe ca nga dekkee ko yowmal xiyaam dana la indil ak texee di bu fekkee na xool nga say jëf gis ci jëf yu ñaaw xool sa tawxiid gis ci ay njuumte ku toll ne suñu borom tabaraka wa taala nga fooge ko nun bokkul di ko wax ci tawxid di ko ubbee moo xam ci alquran la wala ci tawxid xas sam simple la nga janloog nag erreur bu rëy bi nga def ci màggug suñu borom ak tawxidam gi nga tiit dal di ñaaw njort ci sa bopp ñaaw njort googu nga ñaaw njort ci sa bopp sa ruu gi rotaale ko nga dal di texee di musiba mu mag moomu moo tax sëñ Tuubaa bañ ku firi alquran loolu moo tax muy bañ ku xóot ci yennati masale tawxid yu xóot yi nga xam ne doomu aadama yi mënuñu koo xam kenn mënu koo xam ci jàng xam-xam kenn mënuñu koo xam ci xalaat ñu ngi ko mën a xamee rek ci kashfu maanaay alquran yi yi nga ci xam ne du arab sariyaan la lu demee ni ki yennati boppi saar yi alif laam mim xaamim xaamim ayin sin xaaf kaaf ha yaa ayin saat ak yooyu képp ku dul yër lawxul mahfuz mënuloo koo xam wala képp ku dul dem ci diwaanu saaxine mënuloo koo xam nga xam ne ci lawxul mahfuz benn xaraf bu ci nekk ci xaraf yooyu dañ koo chara ba mu leer waa ji nga xam nag day yër lawxul mahfuz xam charaay xaraf yooyu bu dee yër téere yi nga xam ne mufassiruuna yi nga xam ne ulamaahu zahir lañu dañ wax ne zahir ak baatin ñu bari daañu koy faral di laaj moo wala sharia ak xaqiqa am ñu gàtt xel ñoo xam dañ naan xaqiqa amul li yàlla wax moom la ñu xam li mu digle li mu tere ku nekk ci li mu digle yaa ngi ci yoon wu jub ki nekk ci li mu tere yaa ngi ci yoon wu dëng waaye xamunu xaqiqa sharia dañoo settantalul wala seen àlluwa gàtt xaqiqa ak sharia mënul ñàkk sharia ay àtte la mooy atte yi ñuy atte jaam ñi ak li ñu leen digal ak li ñu leen tere atte sharia ay juróom la farata lu ñu sob lu ñu sib lu xaraam lu dagan ak loo xam ne lu war la farata loolu mooy sharia léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne umirtu an uqatil nas hatta yaqulu la ilaha illa fa ida qalu hafizu minni dimaahum wa aradahum wa xisaabuhum ala allahi ne itam bi mu ne digal nañ ma ma xeex ak nit ñi ba ñu wax laa ilaha illallah bu ñu ko waxee nag musal nañu ci man seen deret du ma leen rey musal nañ ci man seen alal du ma fab seen alal ak seenu deret du ma leen ŋàññi yàlla nag moo amee seen xisaab nit ki bu ki ko wax atte sharia yi daw na ci moom bu fekkee ne du dëgg ci moom loola waaye sharia mooy julli bi nga julli def nga charte julli yépp ba julli ba mat sharia du la ne julli waatal la ca biir nga xam ne sa digg ak yàlla la yoonu sharia nekku ci sharia attewu ko diggante jaam bi ak ak boroomam mooy xaqiqa kooku mooy baatin ñu dem ci li nga xam ne moom lañ doon wax ci mbiri fawaatixu suwar yooyu nga xam ne saryaaniyee la nga xam ne ku dul jàng allahul mahfuz mënuloo koo xam ulamaa yi indi nañ ci ay taxmiin at yoo xam ne amul dara lu leen ci leer amul dara it loo ci xam ne noona ñu ko waxe la demee mbir yooyu bu seetee ak tafsiru bil maasuraat tafsir yi nga xam ne dañ koy jële ci lu ñu toxal lu ñu toxal itam buñ ko seetee dana bari ay ràgg-ràgg ndax bu ñu seetee ci ñi nga xam ne ci ñu ci ñoom la ñuy wax ne ci la ñuy jëlee maanaa yi yennati aay yi lu néew la du dajal alquran te itam lu ci nekk dafa bari ay wax ak yoo xam ne illa yu ràgg ràgg la maanaam turuq yi nga xam ne moom lañ topp ba turuqul isnaad yi dafay dafay nekk loo xam ne benn du wér wala mu am ayib yi nga xam ne ci ilmul hadis mooy tax ñu ne daif la lii daif la bi nga xam ne nag gannaaw sëñ Tuubaa suñu borom daf ko xamal alquran ba mu ragal ko ragal koo xam ne nanguwul kenn ku ko firi moom ci boppam li ko ci suñu borom xamal day na sëkk nee na gis ngeen ko ci xikma alif laam mim ni ko ko suñu borom firi la xam ngeen ne ñaari xaa mim bokkuñu lu ñuy firi xaa bi ci saar wi ak ba ca saar wi bokkuñu lu ñuy firi mim bi ci saar wi ak ba ca saar wi bokkuñu lu ñuy firi nga xam ne kon loolu baatin la ku ko suñu borom xamal rek lay doon waaye du ci ak yéene xam-xam bu bari yër lu bari wala xalaat gu rafet wala yu jub déedéet alif gi nee na dañ ma koo firi suñu borom ci boppam moo ma ko firi la aw rastukal kitaaba donn loo naa la téere bi moo tax mu ne mallakanil qur'aana tamlikan yadum suñu borom moom loo na ma alquran moom goo xam ne gu sax la loolu bokk na ci xam-xamu tawxid xam-xamu wilaaya boo xam ne bu xóot la bu ñu leen waxee rek ne leen donn loo nañ ko téere bi dana laaj ay waxtaani waxtaan ngir mu mën a dugg seen bopp lam gi laqantukal kitaaba sa naa la maanaay téere bi mu ne naajaani al munzilu bil qurani xatta gadawtu mawrida sam ani suñu borom déeni ma maanaay alquran ba ma mujj di naan waayu képp ku mar min ni mu ne mallaktukal kitaaba moom loo naa la alquran moo wax na feneen ne mallakani alquran tamlikan yadum suñu borom moom loo na ma alquran moom guy sax ba faw mu wax ne alquran sama xarit la wa xalilun wa habib lii moxniyan lii am tabib soxlawuma docteur ngir alquran bu ma tawat bu ma feebaree alquran ma feebaral bu ma wéree alquran ma wéral bu ma tawatee alquran lay fajoo moo may faj bu ma amee lu ma lënt alquran may moo may ubbee moo may leeralal alquran ne sama xarit moo ne sama kanam ne ci sama gannaaw ne ci sama ndeyjoor ne ci sama càmmooñ etee man wax jooju continuer tuuti wala amul yeneen laaj mu ni kon laam gi làqantukal kitaaba la la ma ko suñu borom firi la tabaraka wa taala sa naa la maanaay alquran ki suñu borom sa maanaay alquran ndax dana amati lu ko lënt ki suñu borom doonaloo alquran ndax du ko moom ki suñ borom moom loo alquran ndax kon du alalam buñ seetee way yi ci xaw a guddi yépp asidi yi jës bu muqaddimaat yooyu yépp buñ seetee mujj gi sëñ bi alquran rek la ciy wax surtout seetal jës bu kitaabu rabbeel kitaab la ko tàmbalee kitaabu rabbeel kitaab ba ba jës buy jeex si boo seetee mimiya alqalbu minni fi dal yawmi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima ñu wax naan xata ata bi kitabin ajazal bulaxa wa kalla an mislihi man yurifu lqalama wax na ne zanbun wa kibrun wa israarun ala fi wax ne ma saddani an kitabillahi xaaliqina faqrun wala dararun sadda lazi tahma ذنب وكبر وإصرار على لهب حب لدنيا اعتماد للورى نهما ضعف اليقين الذي صد البرية أن توكل وابتداء أن تركز اعتباء ثم فهو السبيل الذي ما فيه من عوج لسائر للذي قد أوجد النعمة waaw alquran mu ne mooy yoon bi nga xam ne képp ku jëm ci yàlla mooy yoon bi nga xam ne amul benn jeng-jeng ndax yoon woowu ñëpp a ca mën a jaar ndax ubbil nañ bunt boobu ñëpp déedéet ku ñuy ubbil bunt bi nga xam ne mooy buntu alquran nga xam ne ubbil nañ la ko ngay muy yoon woo xam ne doo am benn jeng-jeng ba ba ngay àgg ci yàlla mooy ki mënatu la am sëriñ ki amatul sëriñ ndax alquran bi ñuy laaj al imam al Ghazali radiallahu taala anhu fan la jàng alquran di wàcce nit dafa ne fi mu nekk ca xadrat xadratul qudsi rek waaye bu nga xam ne anal xadrat xadratu bëktin bu fa nit tolloo day wedam dootu xamati dara ngir màggug suñu borom gi li jëlaalillaahi loolu boo xamee ne nag génn ne ko rek jàng alxuraan dal di koy warati ak salaatu ala nabi ñaar lañu ñoo xam ne fu nit mën a àgg loo àgg àgg ci yàlla jàng alxuraan ak salaatu ala nabi boo ko bàyyee rek ñu ragal yàqule ci yow ñu ne nag kon Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu boo nee suñ borom moom loo na ma alquran donn loo na ma alquran sana ma alquran loo ci jublu loo bëgg a wax foofu ne maanaam al mu ne alquran mooy lépp waxoon naa sànq ci bi may tàmbali ni alquran diise wenn xaraf ni mu diise nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aay yi daan njëkk a wàcc waxtu wuy wàcc nga xam ne booba tàmmagul mbir mi tàmmagu bu sotti bu waree ci kaw gëléem gi bu aayee wàcc gëléem gi dootu ko àttan ndax diisaayam ndax diisaayu aaye yi ba gëléem gi day yës ba aaye ji wàcc ba noppi bu tegee tànkam ci kaw yaramu nit bu kooku xëccul yaramam day damm bu dee pooju nit ki pooj bi day damm bu xëccul waaw waaye nag buñ seetee ne suuratu tawbati baraatu minallaahi wa rasulihi saar yëpp wàcc na ci ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu war ci kaw naaxaam googu ñu wax xaswaa gëléem gu jigéen googu jëm màkka te kenn yëgu ko xam ne mujj gi kon dem na ba roode ba tàmm dékku melow sidna jibril ak diisaayu alquran ba nga xam ne day mel ne ni muy waxee ak nit ñi nga xam ne kon gannaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo amoon fu mu tàmbalee ak fu mu àgg ndax aadami yu gi xam nga ne aadami yu yonent moo gën a for malaaka waaye malaayika moom xam ngeen ne ba ko suñ borom sàkkee rek amul kiiraay ndax yonent jëmm ji suuf la ban la ci suuf lañ ko tabaxee ni nit ñépp amul kiiraay waaye kiiraayam mooy diggante ruux gi ruuxam ak yaramam yàpp wi malaaka nag amul loolu ndax ci leer lañ ko bind am na ruux am na xel am na it li ñuy wax ay alxawaas maanaam sens dara dana ko xeeñ dana daj dara xam dafa tàngum dafa sedd wala nu mel dana dégg yooyu yëpp sens yooyu yëpp am na ko amul leneen nag lu dul am na ruux moom ci boppam leer la ruux leer la waaye malaayika am na ruux am na it xel am na it alxawaas maanaam yëg yëguwaay yi am na ko yonent nag moom ci suuf lañ ko bind lan mooy fatxam kon malaaka dañ koy bindaale fatx li ñuy wax fatx fatx bu ñu ko waxee laaj na misaal fatx mooy kiiraay bi nga xam ne moo yiir mbindeef yi seen diggante ak seen borom ñu ñori ko bu ngeen déggee sëñ Tuubaa di wax allamani maa kaana qabla alxalqi man kaana li bi karamin wa tilqi suñ borom xamal na ma la jiitu la xewoon ba mu bindagul dara daf koo firi ci jaawartu bi nga xam ne mooy xaatimatul mataaf bi mu wax naan axfaaliya sirral masuun allaahu xubban wala ilaha illa allaahu ndax assirul masuun jëmm ju dem ba gis ko ndax mooy forme bi gën a kawe ci wax yu ci ci wax yu jëmm ju dem ba gis ko jamono dootu am ci yow béréb dootu am ci yow jamono yëpp maanaam ëllëg ak démb ak tey dootu amati ci yow moom la Cheikh Abou Isis Bistami di wax naan aarif billahi dëgg boo xam ne maftuuxun alayhi amul subaa ngoon kon sëñ Touba ba suñu borom bindagul aadama ba mu bindagul malaayika yi ba mu bindagul dara ak lii mu tiim ci kanamam la yemale woon moo tax mu ne allamani ma kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin wa tilqi bu fekkee nag jëmm ji nga xam ne gis na asirul masuun ku ngeen ma mën a wax ne gis na asirul masuun gannaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak sëñ Touba mu ko wax wax leen ma jëmm ju leen wax ne gis naa asirul masuun ma déglu ba xam ngeen limal ma ñi ngeen xam ne gis nañ ko ñi leen wóor xamu leen ko daal asurul masun nag ki ko gis kon moom la suñu borom déey maanaay alquran loolu moo tax mu fonk alquran fonk bu ko kenn fonkul bi nga xamee ne bu toogee lépp luñ ko jox lu dul alquran du ko nangoog ñaari loxoom alquran lay nangoog ñaari loxoom ak teggin yi gën a mat bu ñu ko ko xasee jox ba mu téyee ko gisatul dara day daal di ne bërét li nit ñi doon teg ci mbubbam ak li ñu ko doon jox lépp bu jógee day ruut du ko gees yoonam nekkatu ci amatu ci soxla day waaxu ba béréb ya muy teg alquran nga xam ne mooy béréb yi mu gën a fonk lu mu am ci xet gu neex lu mu am ci lu set lu sell ci alquran la koy def tëdd ci suuf tër alquran ci kaw bu amee li ko lañ wala cuuraay alquran la koy def ba décide wala jël wala mu bañ a jël dara loolu li ko waral xam gi mu xam alquran mu tàmbalee nag liggéeyal alquran ni muy liggéeyale boromam di liggéeyal yorante bi sallallahu alayhi wa sallam mu liggéeyal alquran liggéeyal alquran mooy soppi na mbind niñ ko daan binde soppi niñ ko daan binde soppi niñ ko daan jànge indi niñ koy fonke soññi nit ñi ci jàng alxuraan mokk ndax bu fekkente ne nit ki dana bay ba nawet bi wàcc mu jaay gerteem du am ñeen fukki dërëm nga bind kaamil ba mu àgg nga maas ko suqi ko sàdda ko indi def li ci war lépp ñëw jox ko mu yëkkati junni wala juróom-ñaari téeméer wala juróom-ñetti téeméer sa jamono jooje jox la nga nekk buur boo delloo tàmbali beneen kaamil boo ràññi ko muy fab këyit di la jox ne la ngay bind fexe ba fonkloo xol yépp alquran fexe ba ñépp di góorgóorlu ngir wattu alquran ngir manzila bi ngay am ci moom ak ci ñi li ko wër boo mënee alquran nga xam ne doomi soxna yi ci réew mi yépp kum ci xam ne mën nga alquran ku ci xam ku ci mën alquran doo yàkkamti lu dul bind kaamil ngir yóbbul ko ko mu misaale ko ne mu ngi mel ne lu ñu sànni woon ci sën bi ñu di ci xëpp doom bi sagar yi salte yi ñu di ko ci wacc mu ñëw for ko fóot ko ba mu set fomp ko bis ko nit ko lañ ci waraay ko lal lalam ba mu jekk mu teg ko ca tëdd moom ci suuf loolu ci zahir loolu ci zahir waaye ci baatin li mu amee ci alquran tax dañu ne qulubul aarifina yi benn dañuy toll ci al ufuqul laala wala al ufuqul mubin zahir bi bokkul ak baatin bi Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu xusuusiye bi mu am ci alquran ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu woo xamee ne téye na xalimaam xam ne yonent bi lay taggi bëgg gi mu ko bëgg dana tax mu mbëg mbëg moo xam ne te mbëg mi yëpp mooy yëg gu muy yëg fonk gi nga xam ne moom la suñu borom fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne xolam day àgg ci al ufuqul laala te al ufuqul laala boo ca boo ca tolloo ñaari rakkaa ñëw julli doomu aadama yi suñu borom bind yëpp li ñu tàmbalee jaamu ba yàlla bindee adduna ba ba muy taxañ dënd bi yool ba du mat yoolu ñaari rakkaa yooyu sëñ Tuubaa suñu borom daf ko may waxtu wuy tagg yonent bi xolam day toll ci al ufuqul laala loolu moo tax bi suñu borom yëree xol yépp mu gën cee sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jagleel ko tagg yonent bi nekk xaadimu rasul loolu mu ne mu tax mu ne mulkul aalil baaqil qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wasaanani fil qadami sëñ bi jéggal leen ma nag nu kii ngeen jéggal ma dama bëgg a dem léegi insha allah Louga yëf yi gàtt na doyuñ waaye nag yàlla mën na def yoon yi mën na am yoon di yem ci benn nu ki dikk buñ fi dikkaatee mën a waxtaan ba suñu xol sedd seen xol sedd ngeen ñaanal nu rek ak wér ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
ci mbirum daal jaayante mbaa doon jéegul bi nga xam ne bi muy dañu koy def te bari ci réew mi ñoo xam ne jàpp nañ daal loolu buur da nekk am na ñu koy wax tey Serigne Touba nangul ko nit ñi kon lu ma a xam la ndax ba xam loolu ñu koy wax fu ñu ko teg ak li mu wax ne ñi ko soppul daal du ñu am mukk lañu bëgg kon bëgg a xam ñi ko soppul ñooñu loolu moo leer seen bopp daal bi daal gindi kuy tam ci yëgul bi ñuy def daal mu tegu
asalaamaaleykum mbirum jébbalu moom dañ ko teg foo xam ne bokkul ak fa mu nekk ndax turu jébbalu baatu wolof la waxoon naa leen ko ci bi ñu fi laajee ndax coow lu bari woon ci mbirum li ñuy wax sujjóot naa ngi ci bari fàttali ko nañ ko wala am na band yoo xam ne dañu ko ci gis waaw ñu doon wax naan ak gravité te li leen naxoon mooy turu sujjóot yu wolof yi wax waaye li ñuy def du sujjóot sujjóot ci sharia waxoon nañ leen ko moo di juróom-ñaari yax yooyu da ngay li sharia tudde sujjóot këpp sa jë sa bakkan sa ñaari biir loxo ci suuf sa ñaari cati baaraam ak sa ñaari wóom ànd ak fas yéene jaamu loolu lañ tuddee sujjóot waaye ñii taalibe yi def wenn muy taqbirul yadi wala tabarruk taqbirul yadi moom waxoon naa leen moom it ni mu demee waxoon naa leen ni leen taqbirul yadi kon loxo maanaam boroom ñeenti ngir yépp d'accord nañ ci imam Malik moo ci am benn xalaat boo xam ne nee na waxul ne sharia sib na ko wala kenn sib na ko moom ci boppam ngir bañ a rëy bañ a gis boppam ngir toroxloom moo tax mu sib ku ko ko defal moom nee na moom ci boppam moo ko sib waaye du sharia ko sib loolu noonu xalaat taxawaay boobu mooy taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane boo seetee Jawahirul Maani da nga ko ci gis moom daana ko bañal ñennat di ko nangul ñennat daawu ko bañ ci waxtu wu nekk daawu ko nangu ci waxtu wu nekk ndax xam nañ moom imaamu Shafii nee na dara nekku ci imaam Abu Hanifa nee na dara nekku ci dagan na imaam Ahmadu moom nee na bu dee ku ñu yaakaar ngëneelam ci wàllu diine lu dagan la bu dee nag koo xam ne kii ci wàllu adduna ni ki borom alal la wala borom daraje adduna nga defal ko ko moom moom sib na ko imam Malik moom dafa sib rek ko ko defal ngir bañ a gis boppam ngir toroxloom naka noonu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhuma léegi kon mbirum jébbalu itam noonu lañ ci demee ndax jébbalu du dara lu dul joxe sa bopp koo xam ne daf naan la defal nga def di la tere nga bañ yow boo feebaree sax toujours ma wax ko boo tawatee sax da ngay jébbal sa bopp docteur bi bu la nee bul añ doo añ bu la nee bul reer doo reer bu la nee sumil sa tubéy sax nga summi ko jébbalu weesuwul lool kii dafa def taxassus maanaam dafay spécialisé ci mbirum yàlla jaar na ci ay jaar jaar li ñuy wax jihaadu nafsi def na ko ba xam bon boni bakkan ak yàqu yàquteem ak na muy lore dem ba am ngërëmal boromam yow mi ci jaaragul ni nga xamee ne noonu ngay fekkee ku jàng ba am xam-xam nga bëgg xam-xam nga ñëw sa baay fab la jébbal la jàngalekat boobu mu di la jàngal lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko noonu la demee jéblu nag li mu wuteeg yooyu ñee seen yaram la ñu jébbale ñii seen bakkan la ñu jébbale ngir ñu dindil leen ayib yi dindil leen texee di gi def ci ak texe loolu itam ku umpale tasawuf rek moo ko moo koy garaawal wala moo koy moo ciy wax dara waaye lu leer a leer la ndax boo seetee xikma sëñ bi dafa wax ne sëriñ ñett la cheikhu taalim mooy professeur bi jàngale cheikhu tarbiyati mooy sëriñ bi ya yaree yaru diine ak cheikhu tarqiyati mooy sëriñ bi lay yéege ci yàlla kenn ku ci nekk am na ñetti charte xaw a yàkkamti waxtu gàtt yi moo tee nu dem ci ba mu leer li mu wax ne ku ko soppul texee ji nga mooy waaye nit koo xam ne buggul lu dul yàlla nekk na fi ba jóge fii léppam ci yàlla yàlla ak yonent bi rek soxlaalul kenn dara tooñul kenn deful kenn dara ku ko bañ foo ko teg ku ko bañ bugguloo yàlla képp ku bëgg yàlla ku bëgg yàlla rek nga bëgg ko man daal mboolem xutbul xaw si mboolem awliyaa yi mboolem jullit ñi mboolem ñépp bëgg naa leen ngir yàlla ni ma gëmee kii laa gëmee ñépp féete nag fi ma féete bañeel moom bañ benn jullit araam na waxuma laa koo xam ne dafa bëgg suñu borom bëgg goo xam ne bëgg ñett la bëgg gi suñu borom di bëgg jaam bi ñetti xaaj la bëgg gi jaam bi di bëgg boromam ñetti xaaj la bëgg gi suñu borom di bëgg jaam bi xaaj bu njëkk bi mooy li nga moom sa alal ni nga ko bëggee nga xam ne boo ko bëggul woon doo ko sàkk loolu moo tax ñu araamal yàq araamal tooñ nga dagg ñax goo xam ne soxla woo ko sax yàq la araam na saaba bi do sahabi yi bi doon jàpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wattul israaf bul yàq mu ne ko naa yàq ba ci ndox dañ koo tere mu ne ko doo boo nekkoon ci peqtalu géej gi nga yàq araamal nañ ko kon suñu borom lépp lu mu bind bëgg na ko muy yéefat bi muy lu mu doon rek boo ko yàqee tooñ nga bëgg googu mooy bëgg gu njëkk bi nga xam ne suñu borom bëgg na ko lépp lu mu sàkk lépp lu am lu baax lu bon ak lu mu mën a doon maanaam ni mu ko bindee nga xam ne mbindeefam la bu waxtu mu ko fi war a jëlee benn jaam waru ko ci fekk di ko ta du aajo joo xam ne tax na sharia daganalal loolu le ni ki tey bëy yi ak xar yeeg yooyu nuy rey di ko lekk nga xam ne suñu borom a ko daganal loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne Suhayl ibn Amr ku mën a wax la woon nekk balix boo xam ne fasix fu mu toll taxaw day xutba di yàq yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko teg ci deram yu kenn xamul di lë lëndëmal ba xolli nit ñi ci yonent bi ak di yàq seen bopp Seydina Omar ne ko da nga koy jàpp nga sempi ñaari bëñ yi ci kanam dootu mën a taxaw mukk di xutba di la xutba mu ne du ma ko métital yàlla di ma métital ak li ma nekk yonent lépp nga xam ne kon suñu borom li mu bëgg lépp bëggul ko ci tooñ lenn ndax loolu bëgg googu mooy bëgg matale mooy bëggu njëkk gi bëggu ñaareel bi nga xam ne moom la suñu boroom bëgg jaam ñi ñaareel bi ñi gëm rekk ko moom mooy gëm bëgg gi mu bëgg képp ku gëm ak amam ñetteelu bëgg gi mooy al ub al xubbul azal yi ñamu soppoon ca azal ba dara amagul nga xam ne ba mu bindagul dara la leen soppoon ndax suñu borom amul tey ak ëllëg booba mu ngi mel ne bind na lépp bi mu bindee lépp ni muy jànloog ñoom ba mu bindagul dara noonu la jànloog lépp ndax moom amul luy amee ëllëg ñi nga xam ne bala ñu koy xam ëllëg ñëw wala lu xewoon démb nga xam ne fekke wuñ ko dañ koy laaj lépp a teewandoo fi moom fi moom kon ñooñu mu soppoon copp googa copp cofeel googa ñooy jaam ñi nga xam ne ñoom la teral dayob teraanga màggal leen dayob màggal fonk leen dayob fonk ku ci bañ kenn ñooñu nag ba tey daraja yi ñu dikkee ci àdduna ñi nga ci xam ne doon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam waahiran wa baatinan ñooñu suñu borom daf leen a waxloo ngir feeñal seen bopp ñooñu ñoom koo ci weddi mel na ne weddi nga yonent ñi nga xam ne nag suñu borom daf leen a nëbbuloo denc leen waxloowu leen ku leen weddi wala nga dingat leen du la wàññi dara ndax ñàkk xam la suñu borom moo leen xam luwul bëgg gi nga xam ne nag jaam bi moo ko bëgg suñu borom moom it ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari xaaj ñi ak yonent yëpp ñaari xaaj ñi lañ jàngale bu ñetteel bi kenn du ko jàngale ab cër lay doon ci asal mooy xubbu zaati xubbu zil jalaali wal ikram bëgg nga bëgg suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne du caa génni xéewal gi mu la defal wala ni mu la binde bind bu rafet bu mu la dugal la ci lislaam wala yooyu yëpp taxul amul benn illa bu tax da nga bëgg rek jëmmam ju tedd ja nga bëgg moom nga fonk kooku ah siddiqoona aarifoona tànni fi aarifoona billaahi ñoo ci àgg ñooñu xubbu googu nga xam ne xubbu azali mooy dayab teraanga di dayab màggaay di dayab rëyaay di dayab foor fa suñu borom tabaraka wa taala jaam boo xam ne bii am nga ca benn bën bënu pusa wala kem pepp dara ku la bañ rek alko bu amul ngant ku la bañ rek alko bu amul ngant kon ku la bañ rek alko bu amul ngant kon bu sëñ bi ne chaqa uma lam yahmani qad kutiba wala mu ne ajiru lazi nazaani walam yatub shaqaabatun tëddumu fi umul kutub li mu wax dëgg bu wér la loo xam ne dara mënu koo dindi bëgg ñaareel gi ci nga xam ne mooy daraje ñaareel gi féete suuf mooy nga bëgg ko ngir illa googu bëgg la yonent yi jàngale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ahibbu allah tabaraka wa taala lima yuxzikum bihi min anniami wa ahibbu nii li xubbillahi iyaaya wa ahibbu iyaali li xubbi la iyaahum sopp leen ma sopp leen suñu borom ngir xéewal gi mu leen di xéewal kooku mooy darajey ñaareel ji xe ña ko sopp copp sopp gu njëkk ga ñooñu ñoom lu ñu tànn la amul illa suñu borom la neex ña ca àggul waaye sopp nañ suñu borom tabaraka wa taala ngir xéewal gi mu leen di may mooy bu njëkk bi féete suuf daraja ñaareel bi mooy nga fonk ko ngir màggam gi ak rëyaayam gi ak darajaam gi nga xiyaas ni mu foore ak ni mu réyee ak sañ-sañam bi ak xam-xam bu bari bi ak taaram bi nga xam ne kenn mënu koo xalaat yonte yàlla Musa alayhi salatu wasalaam bi ñu koy laaj yow mi dégg waxi suñu borom gisu ko de wax ji dem demee mu ne juróom ñaar fukki junniy dën yu dalandoo nga xam ne bu ci ne dafa mel ne dafay dal ci sa bopp bi boo ko déggoon ni muy tiiseeg ni muy mettee ànd ak bànneex bi nga xam ne kenn mënu la xalaat na mu demee ñu ñu boole maanaam kon dégg gi rëy gi màgg gi maanaam dënu yi dégg gi nga koy dégg tiit gi ngay tiit ak ñi nga xam ne da ngay bëgg a dee mooy wane màggug suñu borom gi ca la mu cof ci lu néew dégal le ko bànneex bi mooy jóge ci rafet bi suñ rafetaay gi suñu borom rafet ba jéggi dayo nga xam ne kenn mënu la koo misaal nga xam ne waxuma taaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko feeñal waaye taawu se taaru Seydina Jibril boo ko gisoon benn yoon rek foo wëlbatiku foo xool day mel ne moom ngay gis loo xoolee ci adduna day ñaaw ci ba ngay bëgg a wàccu nga xam ne ca meloo ko suñu borom bindee bu waxoon rek nga dégg baat bi neexaayu baat bi boo déggati nit ku wax da ngay bëgg a wàccu ay weer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh képp koo xam ne yaa ngi songu diine